waaw nee na dina dina waaw loolu moom wax na ko. lan lan la wax ku lan Sonko. ku ku ko ku yuuxu Sonko. waa et puis les gens mais sëñ bi comme neex nga yuuxu Sonko ah. mais tamit nag moom moo foog ñu waxante dëgg. booy Pastef fii na nan waxante ñoom. non mais xam na la moo gën a neex bu baax nanu convoqué ñoom lu ñu wut tribunal ah, xam nga li gën neex. waaw bi maître El Hadj Diouf yeggee. yeggee Bakel ba taxaw ba commencé wax booy romb ko ne Sonko yee. Sonko yee. Sonko maître El Hadj Diouf ne il faut les yee ah. dégg les dégager. waaw waaw <laughs> te xoolal boobu dañu taxaw bi. kon Sonko jàpp Bougane fii waa ji romboon tribunal. xoolal bu maître El Hadj Diouf naan ces personnes dangereuses en ordre que. léegi la mooy état de nuire Sonko yee mooy danger bi en fait. Ah, kon Sonko le danger danger non non le danger c'est Sonko yee. xam naa mooy li xale yi doon way ama yi lay bañ dégg. mais gars yi dégg par la force et puis le gars juste parce que dafa dégg sonko sonko. Mm-hmm. et c'est situation boo xam ne li may tooñ parfois ne mm-hmm. situation bi am ci politique bu Sénégal c'est injuste. Mm-hmm. mooy c'est quelqu'un boo xamante ne nii il devient incontournable. avant ñuy dugg fële pour wax ne ci Bougane. Bougane li koy topp nii. Euh, code de la route. Mm-hmm. ak code pénal. Mm-hmm. muy wàllum refus d'obtempérer. ak euh, refus ak rébellion. Mm-hmm. moom lañ ko toppee ñaar yëpp benn bi. code pénal aussi ñu benn bi code pénal moo ko wax beneen bi code de la route moom moo ko wax gis nga boo nekkee ci kaw tali loolu tamit il faut en profiter. pour yee li nga xamante ne moo di sénégalais yi. homme de tenue nit la comme yow. Euh, sénégalais la comme yow. Euh, day lekk ni yow day naan ni yow mais pouvoir yamu yow tenu bi mu sol moom moo ko ko jox. exactement constitution bi moom moo ko ko jox. Mm-hmm. booy doowal ci kaw tali bu ñu la arrêté ak lu mu munti doon. Mm-hmm. da ngaa war a taxaw. Vito gars yi loo wax ñu ne si Ousmane Sonko lañ ko gisee. waaw dégg nga ma ne la ji Ousmane Sonko bañ ko jàpp 2021 nan la def. bañ ko ne waajal oto bi. moom pourtant wax naa ne Ousmane heure bu bañee. Mm-hmm. la nii la def ba mujjee mujjee ba mu nekkee moom ak lan Guy Marius Sagna ci oto bi. ba gars yi di wax lan lañ mujjee. laissez-nous on va partir euh, au tribunal on va partir au tribunal. laissez-nous laissez-nous. il faut il ce contexte là. Mhm. kii dafa dem di dugg ci benn zone boo xam ne zone bu nekk sous haute surveillance la. bu président nekk ñu ne ko xaaral président mhm. génn mu bañ. Mhm. kee dañ kaa woo pour dossier wu diffamation il était même pas obligé. di dem taxaw devant le tribunal. ñu buddi ko gàdd ko ne ko force da nga dem wuy ji ci loo xam ne amul obligation wuy ji moo tax gars li ñuy tëkkale bokkul il se trompe lourdement ci ay situation yu ñu comparé ah. non kenn da koo tëkkalewul sax ñi ñi bëgg a tëkkale rek ñoom ñoo koy tëkkale parce que parfois buñ ne la naaj baa ngi nii nga ne dee du naaj bi <laughs> lii jant bi la wala weer bi loolu tamit yow la rek absolument mais pour wax ne sénégalais yi refus d'obtempérer <laughs> euh, code de la route da koo tere rébellion mooy nga nekk ci euh, kanamu euh, takk der muy wax uh-huh. nga koy jaay doole wala yooyu loolu tamit code pénal da koo da koo tere uh-huh. kon boo nekkee ci takk der mu nekk en face mu tere la ne la nangam bul ko def uh-huh. nangam boobu bu ko def après nag yow bu dee danga jàpp ne dañ la léser wala dañoo mën menacer say droit wala dañu la xañ say droit am na yeneen mooy de recours yoo xamante ne am nga ko pour dem def ci mais sur le champ sur le champ la takk der bi wax nga la waay ka muy yow ka muy man ka muy sila ka muy momo ka muy bépp sénégalais la la mhm. takk der bi wax def ko lii mu def nag mën na ci risquer li ñuy wax six mois ba mhm. deux ans de ba deux ans de de de de mhm. euh, mu xamaloon na carrément communiqué bi euh, gendarmerie génnee loolu sa wax dara du ci dëgg waaye aussi moom dina tourner li li li la wax ak li nit ñi gis est-ce que ñun dañoo mënut a interpréter. Mhm. wala ñun dañoo amul. dégg-dégg wala dañoo amul gis-gis gis nga keroog. dañoo nekk di seetaan ci kaw fii ma ne bijou gis nga li ñu nekk di gis stade euh, Arena. Dakar mhm. Arena. Mhm. Dakar Arena grand théâtre moo tax mënuma koo ma ne gis nga li ñu fiy gis nii suba dinañu yeewu di seetaan ñeneen ñuy interpréter mais dafay mel ni ñaari événement yu bokkut la ñun lu ñu gis ak ñeneen ñi lu ñuy gis dafay mel ni. dafay mel ni ñaari. ñaari mbir yu bokkul. Mhm. comme gis nga vidéo bi ñu gis ba Bougane naan euh, dites à vos supérieurs que Bougane ira à Bakel. Mhm. ba pare ne varaj moom varaj bi sax mënoon na ko def mu mu xaw a yomb tuuti <laughs> waaye ni mu tourné kii <laughs> moo njëkk ñaaw. <laughs> ni mu lemee affaire bi dem moo garaaw moo filmé wee léegi lii moom bala maa gëm ne gisee ko si film. te <laughs> Bougane mu ngi naan des des fois ñu dawal ka rapide doon. te Bougane mu ngi naan gars yi xoolal mu ngi naan ñu naan filmé filmé. <laughs> ba pare woo contingent bi si ginnaaw. léegi <laughs> est-ce que ñun. émission bi général na ko arrêté de. parce que am na koo xamante ne xaaral ma la am na koo xam ne. bu lay tegal bu lay expliquer vidéo Bougane bi da nga naan yow newut lii nga nekk di gis Sénégal loolu moo fi xewat fu mu toll nii dafa nit ñoo am ñoo nit ñoo xam ne dañuy jël benn situation hmm. interpréter ko neneen noo xamante ne c'est c'est autre chose dafay mel ni gars yi ñu ne ci Bougane gi noonu Ousmane bi mu nekkee keroog ca hmm. warul woon wax ci Jean Michel warul woon aussi wax ci dossier ONAS hmm. waaw parce que ñaar c'est deux dossiers yoo xamante ne c'est pendant devant la justice donc moom waru cee àddu gis nga interprétation bi ñu amee lool. Mm-hmm. mais ils oublient que ne c'est par le premier ministre qui parlait l'autre fois. Mm-hmm. c'est Ousmane Sonko chef de parti politique. Mm-hmm. ba pare am droit protéger ñi nga xam ne ñoom la bokkal ci parti politique. am droit bu dee xam na ñun lu ñu xamul ci ay dossiers. vraiment mu bañ a teg daan ñooñu. ba pare jig ji am droit bañ a seetaan na ñu ngi. néewal ay doole ay éléments wala ay éléments am ci dara lu dul dëgg. parce que moom il a les bonnes informations. am droit vraiment apporter son soutien. au à ses camarades. Mmh. donc c'était pas le gouvernement ki a pris une position. Mmh. c'était pas le premier ministre qui a pris une position. mais c'est le chef de parti politique boo xamante ne gis na ay dossiers yoo xamante ne leer na ko ne lii. Mmh. dañoo nekk di néewal doole. wala dañoo nekk di bëri yàq ay samay camarades de parti. mu défendre leen. la nga xamante ne nag moom la juste pour ñëw ci. défaut wu interprétation yi ñuy am. exactement lépp la buggaan am. wala la buggaan wala la maître El Hadj Diouf def. Uh-huh. sénégalais sénégalais bu ko def. Euh, ñu ah, ñu ñu ñu teg la daan ñu rëq sa dikk. waaw ah, ah, moom moom nag oto bi waru ko woon waru ko woon kii. ni mu ko faraj waru ko woon faraj waaw. <laughs> ak accélération bi. finalement il a été à Bakel ah wala à Tambacounda. Euh, non euh, est-ce que néew Tamba man man dama dama perdre man sama fiilu kii bi sax man. Eh. sama fiilu analyse bi lan nga ma posé woon. question yaa ngi woon juste si anam bu mu defee vrai. non non am na loo ma am na loo ma posé woon question bi. <laughs> yaa ngi woon ci daan yi ko ci mën a fekk. waaw daan yi daan yi mois deux deux ans. Ah, c'était ça c'était ça alors euh, Momo. ci ay euh, xibaar aussi ñu ngi nuy euh, xamal ni kii di Ahmed Suzanne Camara jot naa di am lii di liberté provisoire euh, ginnaaw bu ñu ko arrêté naka le 24 juillet. Mhm. dinañ si dikkaat léegi léegi mais aussi moom moo ci ay xibaar ba tey ñu ngi nuy xamal ni kii di Bilal Diatta. nekk maire bu Kër Massar. ci wàcca élection législative yi non Ababacar Jamil Sané. oui Jamil Sané excusez-moi nekk maire bu Kër Massar. naka tey ji Parcelles Parcelles Assainies moom nañu daal di tabba mu nekk coordinateur. leader ci li nga xam nag moo di campagne mhm. euh, ci liste majorité fii ni gin biir euh, département bu bu Ndakaar loolu aussi nan nga ko mën jàngatee oui euh, xam nga xam nga xam nga Jamil moom c'est mhm. boo xam ne ñëpp xam nañ taxawaay bi mu am ci biir parti Pastef rawatina tout ce lu jëm ci wàllu finance donc loolu moom jàpp naa ne rôle bu mu yàgg a joué la et mhm. actuellement surtout quand on parle de def cagnotte et puis transparence bi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee nii ne dañuy def cagnotte Euh, pour mën a pour mën a pour mën a def seen campagne. je mhm. pense que moom ci côté finance il a toujours travaillé si niveau boobu ak le parti PASTEF. donc mhm. moom moom euh, ku yàgg liggéey ci ci boobu la. alors yow aussi ba tey joxe goo sa sa sa contribution wala ci analyse. Mhm. Euh, ci kaw Barth ca ginnaaw bu mu pour apporter soutien am ci ki nga xam nag moo di Barthélémy Dias. gis nga altercation dugaguñu ci ah? dugaguñu ci. ñi ñi ñi si kii nii naanul